jëwriñ ji gàlloo lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ci réew bu Sénégal di Abdoulaye Diouf Sarr dikkoon ci dëkk bu sell bi di Touba doon amal ab tukkib nemmeeku ànd ak délégation bu takkoo takku ci ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllum wér-gu-yaram ci réew bu Sénégal mu dikkee ci Touba nag li mu jot a def ci ay tournée bëri na ndax jot naa jaar ci diiwaan bu njaareem xool foofale naka la situation ba demee waaye fii ci dëkk bu sell bi di Touba itam mu daal di fi ëndaale ab xibaar boo xam ne ma ngay fësal ne hôpital bi nga xam ne ñu ngi koy tabax ci yoon daaru muxti bi itam war a jël toll ci ñetti téeméer lal hôpital boobu lay filé ak fanweeri weer dina ñëw inauguré si ko. tout hôpital bu bees bi xamante ne moom moo war a accueillir euh, hôpitalu Touba bu mag bi ñuy tabax boo xamante ne na am ñetti téeméeri lii euh, mais aussi euh, spécialité yëpp danañu fi taxaw fi ñu ñëw xool ne entreprise bu bees bi ko war a démarrer muy Jetran vraiment mu ngi à pied te yaakaar naa ne dootul taxaw mukk euh, ñu ngi euh, am yaakaar ne euh, dans trente un mois danañu ñëw pour mën a donc inaugurer hôpital bu bees bi. ginnaaw loolu moom Abdoulaye juuf Sarr mu yëkkati ay kàddu di fësal ne jàngoro ju ñuy woowee dengue te jamono jii mu te loolu askan wi te ñu gisoon ay cas ci diwaan bu Fatick fii la ci diwaan bu Touba itam jot nañ fee nemmeeku juróom-ñett ci ay cas. li ñu seetlu mooy que ne màggal bi dafa nekk ci contexte. boo xamante ne am na feebar bu déclaré wu fële si région de Fatick ñu koy wax dengue euh, feebar boobu nag euh, feebar la boo xamante ne toujours bu at mu yeggee fu mel ni dañ koy seet bu baax a baax a baax donc euh, ministère de la santé si direction prévention mooy jël matukaay yëpp dugg fu nekk pour xool feebar boobu fu mu toll ba mën si identifier ay cas yi ñu identifier Fatick am na yeneen cas yu ñu identifier fii itam si Touba lu dellu si juróom-ñetti. juróom-ñetti cas euh, donc may félicité service yooyu itam parce que euh, bu fekkente ne am nga pas-pasu di dugg fu nekk set ba gis ne ah feebar bi kat mi ngi fi nga jóg nag ànd ak ñi nga war a àndal ñëpp pour faj ko loolu dañ koy rafetlu ñu tëccal kàddoom Abdoulaye Diouf Sarr di fësal ci poste avancé yi maanaam bërëbu fajukaay yi nga xam ne nii fas yéene nañ leen def ci dëkk bu sell bi di Touba ba fépp fu waaye mën a nekk bu sa yaram sutaante nga mën a dem ñu daal la fay faj ma ngay fësal ne loolu le dugal nañ ci jumtukaayu yu yees yi ndax am connexion internet di nga mën a gis bërëbu fajukaay yooyu le que ne euh, danañu indi lu bees loo xamante ne donc dafa yokk si li fi ne woon par rapport ak daaw loolu ndëkk euh, euh, li ngay wax léegi si la bokk mooy que dañuy utiliser xaral yu bees yi sànq bi ñuy présenté fële si Diourbel médecin chef bi présenté na carte wu point de service yëpp fépp foo xamante ne war nañ fa mën a faju mu ne boobu dana disponible si donc site dana disponible si euh, plateforme yi ba képp koo xamante ne rek yor nga donc connexion war nga mën a xam fan la mën a faje nu mu gën a gaawee ak fi gën a jege fa nga nekk